ne moo tete artiste waa Yoff yëpp waaye yemale ko foofu te animateurs yi am mission boo am solo boo xam ne da ko yàgg am ci game bi donc si vous permettez s'il nañ ko tàcc bu baax a baax a baax a baax DJ Laye il va prononcer les mots de bienvenue mesdames messieurs gannaaw bu ñu jógee Thiès jógee Kaolack jógee euh, Parcelles Assainies euh, tey ñu ngi Yoff te Yoff moo nar a gën d'être venu. Après, nous enchaînons avec Gaël. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Voilà, euh, merci beaucoup. Allez, eh, allez, Wayoff. Attends, attends, man xam naa leen xam naa ne man ngeen lu ëpp nii d'abord ani waa tournoi waa dégg naa leen dégg naa dégg naa waa tournoi maintenant ani waa Yoff Voilà, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là parmi nous ce soir. Euh, c'est avec un immense plaisir. tey ñu war a def li nga mooy mot de bienvenue bi. di remercier également képp koo xamante di remercier également képp koo xamante def nga déplacement. Euh, ñëw teew fii tey Yoff euh, plus précisément ñëw teew fi nga xamante ne mooy Tongo. donc ñi nga xamante tey ñoo fi ñëw di leen dalal muy waa Sénart Vision. Euh, képp ku xam Sénat Vision wala ku ne xamul dégg nga leen euh, seen big boss mu ngi nii toog xam ko di ko nuyu di ko dalal fii ci Yoff di ko souhaiter bienvenue ak équipe bi mu àndal ñëpp euh, animatrice yi Maye Mota bonsoir à vous maa ngi seen léegi Malick Ndoye animateur maa ngi seen PNG aussi bonsoir à vous et toute l' équipe qui vous accompagne les filles aussi voilà bonsoir ñu ngi nuyu ñëpp. tey yoof dañu am mbégte yoof dañu am contentement yoof tey dañu fier ci nga xamante ne mooy BMJ donc seenaat vidéo bu ñu jógee di def TRG acte 2 bu ngeen déggee TRG mooy taaru rap galsen xam ngeen ko taaru rap galsen maanaam rap Sénégal lan moo koy taaral seenaat vidéo teg ko voilà merci beaucoup euh, je disais daaw def nañu première édition taaru rap galsen Euh, ñëpp gis nañ ni mu demee woon mu nekkoon une réussite totale ñun ñoo nga fa woon waaye cette année ñoom dañu décidé ñu ne dañuy jël nga xamante ne mooy BMJ gis liggéeyam bu mu def ci année bi yëpp macha allah li euh, mu def li mu présent wee hip hop bi ba macha bu yàggul dara ñëpp gis nañ ne mu am ay distinction yu am solo jël meilleur album également jël meilleur lyrics indi ko fii ci Yoff moo tax tey waa Yoff bu Sénar Vision tànnee suñu doom dañu war a wane suñu bopp dañu war a man nañ ne compétition la donc di compétition parce que am na artiste buy jógee Thiès am na kuy jógee Kaolack am na kuy jógee Médina whatever donc bu tànnee doomu Yoff ñun war ñoo des gannaaw dañoo war a génn fas yéene accompagner ko dajale ay kaar yu bëri jënd ay ticket yu bëri def convoi jubal Dakar Arena Dakar Arena moo nekk jëm ñaajo incha allah show bi fa lay amee le 23 décembre kon nag dañuy dalal bu baax a baax a baax waa encore une fois et di remercier si choix bi ngeen porté si suñu doom muy BMJ voilà ñun moom jaral parce que moom du fi rappeur ah. déedéet maa ngi ci ay rapport yu taxaw ci gannaaw mais wane na boppam am na lu mu liggéey tey Sénégal marqué empreinte am ba ñu war ko mën a tànn kon ñun waa Yoff waruñoo des gannaaw dañu war a jóg wane suñu bopp wane na mbir mi Yoff la incha allah le 23 décembre bu demee Dakar Arena dina mel ni Yoff fekk moo fa nekk ndax dinañ mobiliser jënd ticket yi ñëw feesal ko wane suñu bopp incha allah loolu daal lañ doon am lu ñuy wax encore une fois di remercier bu baax a baax a baax Sénar Vision merci beaucoup à vous pour le choix et bonne continuation merci. merci beaucoup Didier donc côté mobilisation après dañ ci wax. waaw parce que day am solo bu baax foofu ñu taxaw fa. Ah, c'est tellement important il l'a dit tout à l'heure bi MTR rek nekkul Yoff mais dañuy mel ni tey jii moom mooy Yoff loolu mooy ñu fi indi on salue vraiment la présence de tous ces artistes et rappeurs qui sont là. def la nii ngeen def noonu la kontaan nañ bu baax a baax. et pour continuer la conférence de presse mesdames messieurs je vous demande de l'applaudir c'est l'homme fort de Sénar Vision monsieur Moustapha Dieng. asalaamaaleykum waa Tongoor maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam vraiment di am mbégte ñëw fii di nuyu aussi euh, DJ Laye. donc li mu wax kàddu yi dafa am solo quoi kàddu yi am solo la di nuyu aussi euh, DMJ ci euh, di ko féliciter surtout ci trophée yi mu am dernièrement li mu gagné je pense que artiste bu am talent la euh, TRG acte 1 bokk ci woon mais diggante TRG acte 1 ak TRG acte 2 liggéey na ci liggéey boo xam ne amuñu woon. avons l'obligation de jël Kouka déjà artiste bi ñu njëkk tànn moom la parce que li mu liggéey ak li mu def présence ci game bi dafa donc TRG Show laay wax na ko léegi Taaru Rap Galsen euh, du bi ñu am rek mooy taaral ñu ne seen ay ñu jàppale woon duñ leen mën a jàppale donc moo tax signature contrat mu ne woon du def fenn fu Tongoor parce que xam na fi mu xam na fi mu jógee xam na fi mu dëkk te xam na doole bi ko waa Tongoor di may pour mu dem défier la salle du de Dakar Arena le 23 décembre. artiste bu am la quoi. xalaat yi dafa am solo quoi et que musique loolu rek hip hop amul amul secret amul dara ku job daf lay fay moom forcément dafa liggéey moo tax mu fay ko li mu ko fay dernièrement li mu jël ci distinction li mu jël ci trophée loolu yëpp c'est parce que 24 hours 24 heures sur 24 mi ngi liggéey su liggéeyee daf koy fay quoi hip hop du fay ku liggéey. foofu day dem 17 16 moromam la fay fekk. parce que 17 artistes la ñuy doon et compétition la wax na la du compétition nag bu malsaine parce que foo ay artistes di daje rek da comprendre ne damay ñëw ak esprit compétitif et que loolu dafa am solo. mais il faut que mu nekk ci esprit bu bu bu sain ñu ñëw kaf foore ku nekk wane li mu mën ku nekk wane dooleem wane publicam ñu concert rek la ci concert rek la yem ci musique la ci musique la yem en tout cas ñu ngi koy encouragé ndaw la bu nekk ci yoon ek ku mën li muy def la dama koy répété di ko répété man man bokk na ci artistes yi may yi may déglu ñu may ñu may ñu may daaneel parce que am na talent trop quoi eh, maa ngi leen di remercier yéen ñëpp merci beaucoup